bar loolu mooy observatoire suñu baat yiñ leen dénk moo waral ñu am sañ-sañu saytu waa Y'en a marre ko wax mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun si rajo Rewmi FM nu ñu koy defee dimanche buy jot fii ci euh, émission li ci euh, gox bi euh, gox bi nag tey di dalal ki nga xam ni moom moo di Djibril caw monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm ci ni ngeen nangoo invitation bi ci réew Rewmi FM ak réew mi TV. alors maa ngi lay fay Mbemba di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan si. réew mi FM ak réew Rewmi TV. Mhm. la télévision di peuple. <laughs> Euh, di nuyu ñëpp di euh, delloo njukkal aussi Sénégal. Mhm. di leen euh, sargal si bésu màggal bi ñu jógee d'abord. Mhm. ak si gàmmu bi. monsieur le dañuy dooree ci li nga xam ne moom moo jëm ci lubbite l'école yi xam nga ni ci semaine bi la ñu ubbi li nga xam ne moom moo jëm ci l'école jàngalekat yeeg élèves yëpp dem nañ li ñu lay njëkk a laaj d'abord reefaan ndax lépp yemb na. pour école yi wala ndongo yi euh, door li nga xam ne moom moo jëm ci njàng bi. waaw jërëjëf Mbemba euh, bon comme ni nga ko waxee donc semaine bi ñu génn ñu ngi woon ci ouverture classe yi ci ci Sénégal yëpp euh, Refane nag bon ki faut peut-être avouer que foofu bëriwul jafe-jafe. parce que bokkuñ ci école yi inondé foofu classe yi école yi du ñu inondé. Mhm. vraiment du ñu amul inondation. peut-être maintenant y a problème mu déserbage problème mu désinfecté locaux yi problème fourniture aussi mhm. yooyu yëpp c'est des problèmes qui se yoo xam ne bon dinañu dinañ ci def lu ñu man pour que vraiment le plus rapidement possible élèves yi jàngalekat yi tous les acteurs mën a nekk ci condition mhm. yu ñu yu ñu démarrer seen activité yi parce que tamit c'est c'est extrêmement important association des maires du Sénégal Aliou Sall n'est plus maire euh, tey renouvellement bi kañ la oui non non c'est doy ça ne va plus tarder c'est sûr que ça ne va plus tarder mais xam nga bi ñu jógee élection ak léegi yàggul ensuite am na yu fi dox. les élections législatives. élections HCCT ah donc tout ça c'est des contraintes yoo xam ne. Mm-hmm. mais bon li wóor mooy dootul dootul yàgg dootul yàgg parce que Aliou c'est pas quelqu'un qui s'accroche à un poste. waaw mm-hmm. je le connais bien. waaw Aliou du s'accroché ci cos poste kon xanaa yow bëgg nga. oui j'avoue que non franchement. Mhm. doo candidat ci euh, succession Aliou Sall. non non du ma candidat. Mhm. franchement du ma mhm. candidat. pourquoi le choix. non parce que j'ai déjà trop de choses dans ma tête quoi <laughs> te bëgguma jël aussi responsabilité boo xam ne doo ko doxee la mu war. Euh, déjà man maa ngi daw diggante direction bi la mairie l'université c'est de c'est assez doy na. vraiment pour man nañ ko jox koo xam ne il a le temps. de s'occuper de l'AMS. man franchement non bëgguma. Mhm. bëgguma yaa Omar Ba dégg nañ fii le maire de. Euh, Ndiop Guinguinéo Omar Ba euh, Omar Ba le maire de Ndiop. ak ki nga xam ne moom mooy euh, maire bu gi neew Guinguinéo Latmingué du moins. Mm. ñoom itamit yëglu nañ ne bëgg nañ jiite li nga xam ne moo jëm ci AMS. mais mais ils en ont le droit hein. non ils le droit tous du Sénégal ku ci bëgg am nga droit yëkkati loxo ne bëgg naa. éducation lañ koy daal di njëkkee xam nga ni école bi daanaka tàmbali na tey ñu ci bari naan ubbi tey jàng tey am na ci commune yoo xam ne wala ci ay gox goxaan yu bari tàmbali ñu ko ndax ndox mi wala sax ay sinistré yi nga xam ni ñoom ñoo nekkoon ci ay lekkool ba léegi mënuñ fa génne commune bu Ndiob ndax lépp yemb na foofu wala doon njàng mi door na. waaw njàng mi moom door na ndax yu dañoo am chance euh, inondation yi laaluñu. ñu nekk dans une zone ba nga xamante ne école yi nekkuñu ci zone inondée la nga xamante ne dañ ko waroon a def ci école yi pour élèves yi mën a jàng muy euh, nettoyer école yi loolu yëpp dañ cee déggoo nag xale yi école yu bëri ASC yi ñoo jël seen responsabilité dem defar seen école yu mën a jàng saytu nañ ko ndax jour ouverture bi inspecteur élémentaire bi ñëw na ñu wër école yi xam ne en tout cas euh, école yëpp commencé woon nañu enseignants yaa ngi woon sur place école yaa ngi woon sur place euh, élèves yaa ngi woon sur place euh, lu ñu waroon a defar nettoyer nettoyer nañ ko. Mhm. te xam nga école Ndiop depuis mille 2014 dañoo am benn aada bu ñu def foofu. mooy mooy que gratuité des fournitures scolaires. monsieur le maire alam du la soxal la. Mhm. Euh, mel nii euh, li nga xam ne moom moo jëm ci environnement café woo ko fooyoo ko benn yoon. waaw euh, tey ndax da nga jàpp ni njob yëpp garab la war a doon. waaw cest dire que loolu moom su nekkoon ne mën ñoo wax deuxième religion mën naa wax ne environnement mooy nekk sama deuxième religion ndax gëm naa ko lool. Mhm. te loolu tamit dama ko defuma ko noonu rek ci caaxaan dafa am fu ko wéer. fan nga ko wéer fi ma ko wéer mooy ñun béykat yi xam nañ ne soo demee fanweeri at ci gannaaw population bi da doon béy dunde maanaam daaw ñu woon jéggaani lenn la nga xamante ne dañ koy lekk ci li am solo mhm. ren da nga boobu da doon béy lu tuuti nga am lu bari ren moon même dangay ngay lu bëri te tuuti ngay am maanaam suuf si dafa dee ndeemu suuf soosu nag li ko gën a waral. mooy la nga xamante ne ni ñuy mbéyin bi di ci def ay engrais chimique de synthèse di dagg garab yi amatul garab. loolu yëpp day conti ñu bàyyi suñu aada cosaan bi doon tose. tool yi euh, def ci engrais euh, chimique bi loolu bokk na ci li gën a rey suuf si. alors moo tax nag. comme la première sécurité qu'il faut chercher c'est la sécurité alimentaire. Mhm. restaurer fertilité sol bi delloo suuf bi dooleem. donc protection environnement da cee bokk. moo tax nag ñun ñu ci dox bu baax. Euh, muy euh, dañu am une vision écologique. xam naa ne li ma bëgg a wax nii mënuma ko wax ci. ci ci wolof. ndax mais dinaa ko wax ci français. Mm-hmm. suñu vision bi ñu definir mooy. Mm-hmm. Mm-hmm. faire de Ndiob une commune verte. résiliente et c'est possible. et c'est possible. ci euh, wàllum ndox mi naam def ko ci ay jéego. mais ci wàllum paj paj moom xam naa lu am solo la. trop mais ci wàllum prise en charge bi. mais sa commune bi nga nekk naam ñetti structure santé la am mais jafe-jafe yi bari nañ fa trop trop jafe lan nga ñu ci mën a wax waaw ah, xam nga foofu comme ni ma la wax rek yaa am na poste de santé bu Kabakoto poste de santé bu Dabali ak case de santé de Sinthiou Mamoundary ak benn case bu ñu construire woon mais équipé guñ ko ci wàllu santé bi def nañ ci ay jéego yu am solo parce que Mamoundary équipé nañ leen en matériel médical bi nga xam ne daanaka matériel bu mucc ayib bu mucc ayib laa ay lalu fi jigéen ñi di accoucher tey matériel yi ngay fekk principal di ko fekk clinique man leen nga fay fekk nga fay fekk ay matériel haut de gamme laa fa yóbbu fa yëpp matériel ba nga xam ne daanaka xaju fa ay ci wàllu aussi ay médicament daan nañ may kaba daabaali et tout ça am na aussi. Euh, suñu jeune frère aussi temps yi mu ñuy jàppale ci wàllu paj mi donc dana wàlla ci wàllu médical yi ak ay partenaires am yooyu mais ba léegi doyul comme li ma la wax donc ñu ngi sakku état bi et ça je l'ai dit euh, ñu jàppale ñu ñu mën a am benn poste de santé voire centre de santé de référence bi nga xam ne daabaali lañ ko bëgg a def toxal bële parce que dafa xaw ndaw te village dafa xaw a bari bu ñu paree aussi danañ délocaliser yeneen poste de santé lu ci mel ni boobu bëgg nañ fa def benn lu ci mel ni côté bu bu nekk Bamba Dramé ñu améliorer ko def ko poste de santé pour vraiment mën a zone boobu daal ci wàllu médical beeg yooyu. ce que ñoom ñi nekk foofu naam état dina leen ñëw di jàppale mais est-ce que subvention mairie bi. léeg-léeg duy faral di tardé. waaw xam nga euh, état moom budget comme ni nga ko xamee donc balaa may dugg ci wàllu subvention bi aussi mayoon nañ kabakoto ambulance suñu xarit Doudou Ka le ministre de transport mu ci jàppale woon aussi ñu ngi koy sant di ko gërëm population bi yëpp euh, conseil municipal bi yëpp ci ambulance boobu bu bees pour la mayoon euh, population bi ma ñëw ci wàllu subvention yi li nga wax ak fonds yi waaw loolu moom xam nga budget moom. Mhm. ay prévision la te xam nga budget ni ñu koy doxalee ak yooyu donc c'est pour tout le monde commune yëpp la donc voilà ñu ngi ci euh, comme yeneen communes yi rek ni ñuy doxalee ak état bi ci boppam parce que ñoom aussi budget boobu laal na leen donc ci loolu la ñuy kii ak yooyu daal. marché yi ak suqali ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi bien vrai que am na marché hebdomadaire mais est-ce que tey waruñu ko gën a yaatal ñu si bari tey comme ni ma la wax intercommunalité bi ñu ci bari di ñëw. di xool lan lañ fa mën a am man ka yóbbu jaay femmes yi su xoliku bu baax. waaw ah, ci loolu lañ nekk ci projet comme ni ma la ñun suñ commune amul marché hebdomadaire mais temps yële délibéré nañ benn bés mooy àllarba créer luuma firgi pour mën a fexe comme li nga wax ak intercommunalité bi gars yi li ñuy béy di ko jënd di ko jaayaat ñu mën ko jaay ci luuma bi dana indi ay recette dana indil benn prix value benn euh, kii ci panier ménager population beeg yooyu. <laughs> femmes yi nag su xoliku wàllum financement. est-ce que ñu ngi ci financé woon nañ leen plusieurs fois jàppale woon nañ leen assister leen organiser leen fexe boo am na ñaar yoon financement commune Daabali ñaar ba ñetti yoon. Mhm. récemment rek avec promise jeunes yu bëri am nañu ay jakarta ak yooyu jigéen ñi am nañu ay frigo avant DER bi aussi daanaka jàppale nañu ñu bëree bëri côté boobu. tey bu nu mënee fàttali ko tuuti ci histoire bu ñu nee ñiit xel ci lan lay dem tey ci ci wàllum histoire. waaw kenn ko ne sa xel dana dem si ndox ndax usine bi jëkk a samp si Sénégal euh, di jox ndakaar ndox ñi la samp mu war dem ay 2012 ah ak 72. 72 la fa usine bi samp. 1972. année 1972. la fa usine bi samp. année 1972 ak tey nag yàlla def na usine boobu dafa nekk allemand yi ñoo ko liggéeyoon mu nekk usine boo xam ne booba ak tey mosuñu yëg jafe-jafeem waaye jafe-jafe bi nu si nemmeeku rek moo di dëkk bi usine bi samp di ñu am problème mu ndox muy ñiij dëgg la état bi def na si ay jéego wuute na ak nu mu meloon waaye ba léegi des na ndax am na dëkk yu mag yoo xam ne boo fa demoon lu mat mille personnes di fa yeewoo benn borne def fanten nga fay fekk. waaw léegi yow mënuñu wax tey euh, monsieur le maire commune bu ñiit ñu ne ndox lac de Guiers fa lay jaar ñu am yéen seen dëkk am jafe-jafe ngir jote ci ndox moomu loolu lees mën a comprendre ci loolu. waaw xam na ne àddina moom du ñàkk jafe-jafe. ndax état bu doon sagoom kenn du manqué lenn waaye nag si première daal négligence la ñu ko mën a tuddee. ci ka ci ban fànn ci ñan. si si si état bi. Hmm. ndax euh, usine mënul samp si dëkk lu mat ñeent fukki at ba ña juddu si gannaaw usine bi ku si jàng te yàlla def si yow xam-xam nga war mën tee réew ba pare nag euh, dëkk ba di mar. kon foofu si fànn boobu si état la ñu la ñu si wax ni moom moo si xaw a am càggante. ndax da di seetaan. da ndax dangeen toog di seetaan. noo noo ngi waxtaan ndax wax dëgg yàlla si nguuru Macky sàll lu bare réglé na si ndax sama mbokki alpulaar yi nga xam ni dëkk yi dañuy xaw sore mhm. man naa ni bi may jot si commune bi fukki dëkk yoo jël ñett si am ndox commune bu ñiit commune waña bu nu la jàpp bu la déggee si say wax euh, ci yenn émergence la nekk ah waaw nun incha allah nun dañu gëm ni développement wu Sénégal mi ngi juddoo commune de ñiit te loolu lañu gëm te ñu bari moom la ñu war a ñëw roy waaw tey si tey école la war doon école la war doon si Sénégal ñi ñëw gis li xew si commune de ñiit li xew si commune bi ñi mhm. école la fa war a doon tey ñëpp ñëpp ñi ñëw gis ko pour ñu roy si ndax loolu mooy tabax Sénégal ba ko mu ngoog loolu mooy tabax euh, Sénégal mais monsieur le maire li nga wax ñëpp am na solo mais suuf itam xam nañ ni problème la euh, ci nim réew sa commune gis nañ fa gii Marius Sagna ñëwoon fa ak ay ñoñom di wax li nga xam ni moom moo jëm ci mbirum suuf waaw xam nga Sénégal dafa neex ba euh, ndax nguur waaw ah, loolu nu mu demee sax bëggi Guy Marius ñëw di jàppal askan wi mbirum suuf lan mooy problème bi lan nan na demee moom laa lay bëgg expliquer ma ni senegal moo neex ndax nguur ba mu bàyyee duma rek kenn ku nekk na ngay taxaw di wax lu la neex hmm. e, dafa am si commune di ñi côté boo xam ni cañalde la ñu koy wax lu ñu lu wëral cañalde dafa mar hmm. yàlla dogal ñoom fukki village ak ñett ñi bind seen leetar ñëw si commune bi dañu bëgg ñu jàppale leen ndax gis nañu commune di ñi li fii fiite fëlaw bi yëpp ñu ngi dund dund gu baax ñi jàppale leen pour ñaam projet <laughs> keroog bi ñu ñëwee Angleterre la ma fekk ñi jox leetar bi sama adjoint bi ma ñëwee mu wax ma ko yàlla def ñoom ñi retourné yëg ni ñëw naa ñu ñëwaat ma ne leen ah, am na projet bu fi ne projet état la projet état boobu nag am na dëkk yu ñu soufflé woon am na si dëkk boo xam ni am na ñu nangu am ñu bañ léegi nag bàyyi leen man ma siñaale ko euh, coordinateur bi ba xam ban xalaat la si am. Mhm. yàlla def ba ma wooyee madame Diop wax kaka mu ne ma war na man ne waaye danaa fa yeble ñi ñëw seet. Mhm. bi ñuy yeblee ñi ñëw seet ñu ànd ak chef du village yi ànd ak ñëpp ñu wër te foofu lu ëpp. Euh, ñeent fukki at ndax nun noo mu mujjoon di bay noo nga fa jóge soixante-quatre muy àll boo xam ne nii la fa nekk ci suuf war na mat dix mille hectares sa wax naa la si laa jox sàmm yi quatre mille cent quatorze hectares ma ni leen léegi bu ñu wëree ma ni leen léegi daañu leen jox mille cinq cent hectares mhm. yéen ñu fi dëkk pour ngeen liggéey ak projet bi ñu jox leen mille cinq cent hectares ah euh, bi leen joxee mille cinq cent hectares léegi nag dañu ko war a diviser par deux. Mhm. promoteur bi am soixante euh, euh, sept cent cinquante hectares population bi am sept cent cinquante hectares bu population bi nag ànd nañu ak population bi ba projet bi grillagé ka ba mu daj. seen mhm. sept cent cinquante. Mhm. dafa conduire yoo xam ni. man na tooyal lépp. Mhm. mu des nag bu promoteur bi si ko euh, euh, kii xam nga politique li ko tax a bon. Mhm. opposant yi daal di ni leen grillage bii mu fi def naan leen yéen ko moom sept cent cinquante yi ah, dañu koy def jaay na ko tubaab yi. te loolu am na moo am walla amul. waaye yow koo bëgg a développer sa gox daa def yi fi ñàkk fayda kon jàppale ñoom politique lañuy def. dañu ko def politique ni leen grillage bii ngeen di gis muy wax jaay na ko tubaab yi. première euh, problème bi nga xam ni ci semaine bi yëpp ñu ngi koy waxtaanee mooy Fambine euh, gis ay élèves yi nga xam ni ñu ngi dugg ci ndox di dem di jàngi mu nekk situation bu difficile yow ci axe boobu nga nekk naka ngeen dundee situation boobu. extrêmement difficile de décevant aussi. lu tax ñu yegg lu tax ñu yegg foofu. parce que euh, waruñu toll ci deux mille vingt deux bay gis ay images yu mel noonu te particularité bi ci am mooy il faut que sénégalais yi taxaw def si njàngat mooy d' abord ay xale yu jigéen kese lañ pourquoi ay xale yu jigéen quoi amul ay góor. lu tax parce que góor ya fa ne mënuñoo supporter di dem di ñëw. te à chaque fois boo tardé parce que da ngaa war a jaar ci ndox mi walla say kaye tooy nga dem ba foofu principal bi walla proviseur bi walla professeur bi dàq la loolu dafay am nu muy demee donc te itam nit ñi jàpp ne. te xale yi nee nañ bu ñuy jàngi ñaari yére la ñuy yóbbu. parce que tout simplement ils sont préparés à ça parce que boo demee ba ba traverser de l'autre côté de la rive danga war a toog simi sa yére yu tooy weer ko fi quelque part sol sa yére yi nga xamante moom nga defoon ci sa saak pour mën a dem ju jàngi. loolu day décourager parce que ba pare aussi li ci am solo mooy malgré condition yooyu euh, arrondissement Niodior bokk na ci. li nga xamante moom mooy def la fierté de l'IA de Fatick en termes de résultats le meilleur résultat que nous avons eu c'est dans le lycée de Niodior pour le bac 2022 mmh. donc boo demee aussi au lycée technique de Diourbel ki fa jël major il est formé dans le dans dans la zone parce que si ci yooyu la jaar mmh. donc il est déjà formé à supporter cette souffrance la donc il a un minimum de conditions yi ñu demandé. ñoom ñu koy am te di jàng. donc vraiment ñoom bu ñu leen dugalee ci ay conditions optimales d'étude et de et de satisfaction ñoom dañuy indi ay résultat yu am solo. donc loolu itam bokk na ci li nga xam ne moom mooy suñu fierté. mais d'abord pont bi je pense que waroon nañ ko mën a régler. d'une manière définitive parce que li nga xamante ne moom mooy bànqaas yi état teg. muy Ageroute muy aussi le ministère. Mhm. avec la direction désenclavement waroon nañu mën a am jàngat bi. d' abord bi ñu alerté ñu xam ne situation bi war nañ. ngeen alerté ngeen lu yàgg yàgg chaque jour yéen a ngi alerté ba démb lañ indi xaw ma gaal bu ndaw wala institut bu ñu ko jox affaire te fekk euh, béy wéy na mbuus. mais ñoom nit ñi li ñu xamut on a construit un pont entre Niodior Dionewar sur du dur euh, c' était en deux mille en deux mille sept. Mhm. mais balaa boobu man bi may def CM2 man. le matin damaa dem def defi examen bokk ak nit ay salle le soir ñoom ñuy jàng si pour def si examen seen gaal këpp ñu gaañu sama salle kese kese amoon naa ci trois personnes yoo xam ne dañoo gaañu donc à l'époque monsieur André Sonko était le ministre de l'éducation xale yooyu balaa ñu leen di denc dañu dëkk biir Dionewar ministre bi ñëw na ba foofu donc à partir de ce moment la l'État a pris des mesures pour defar pont boobu ñoom xam nañ ne aussi waruñoo toog ba jëyee am rek ñoom ñu intervenir dans les îles c'est vraiment frustrant. John euh, il te dañuy seetlu ni immigration ba tey dafa des ci ñun euh, ndaxam John mbir mi wàññeeku na. waaw parce que comme comme comme euh, li sama cousine Fat Diom wax quand on sent que la vie qu'on a ici au Sénégal ne vaut absolument rien. Mhm. donc on ne voit jamais la mort comme étant en péril pour l'éviter. au contraire on l'affronte. donc parce que voilà la réalité c'est qu'on part pour réussir mmh. ou bien on reste pour mourir de toute façon l'essentiel c'est c'est de réussir c'est quoi la situation la euh, situation exacte c'est-à-dire nous sommes un point de départ oui parce que boo xoolee itam une forte communauté en Espagne. Mhm. extrêmement important. Mhm. en Europe partout ils sont ils sont. pas moins de deux mille. plus de mhm. deux mille immigrés en Espagne. donc d'ailleurs c'est le paradoxe bi ma constaté par rapport ak le Baos. c'est vrai qu'ils sont en train de faire un excellent travail pour le retour des immigrants les immigrants en retour. mais contexte bi bokkut c'est vrai que émigration quand on le parle dans la terre ferme du bëri effet mm-hmm. mais aussi quand on le parle au niveau des des îles c'est extrêmement important parce que Barça ou Barso Barça ou Barcelone Barça. je sais pas donc foofu c'est c'était d'abord dans les îles parce que les gens sont partis en Europe avec des pirogues mm-hmm. parce que depuis 2006 nit ngi dem ba tey ñu ngi dem depuis 2006 nit ñaa ngi dem wala ba tey ñu ngi dem wala wàññeeku na non parce que xam nga li tax ñoom ñu continuer di dem. Mm-hmm. parce que euh, y c'est vrai que y beaucoup de programmes de jeunes. qui son pilotés par le gouvernement et l'État du Sénégal mais également aussi mooy li may wax rek mm-hmm. yow nga war a ñëw ci île yi pour rencontrer la population jeune et leur proposer des solutions alternatives mm-hmm. nga ne man du ma traverser parce que ñemewu ma ndox donc tu mets en péril les missions de l'État mais monsieur le laata ñuy ñëw dëgg-dëgg ci commune bi ab information dafa jub ci semaine bi que ni euh, dañ la convoqué pour dig mbirum suuf foncier lañ la fa tudd lan lañ mën a comprendre ci convocation bi. waaw jërëjëf d'abord da dangeen di war a xam lan mooy sama fonction bi ñu wax maire maire mooy koo xamante ne si moom moo yore. nekkinu ak doxalinu askan kon ngeen xam ne que ci biir suñu compétence daf ci am euh, ay pàcc yoo xam ne dañ ñu koy dénk benn benn ci pàcc yi mhm. mën naa ne suuf si la suuf si nga xam ne domaine national la mhm. ndax bu ñu wax domaine national il faut nga xam ne que mooy suuf boo xamante ne si du titre foncier loolu mooy domaine national. gestion wu domaine nationale boobu collectivité bi lañ ko dénk man euh, bëkkaat démb dañ ma woo dikk muy division des investigations criminelles mm-hmm. ne ma monsieur le maire dañu la war a auditionner euh, à titre de témoin à de témoin nag mm-hmm. ma leeral ko ci wolof mooy loo xamante ne si Euh, donc ko fekkee loolu mooy témoin ku fekkee waaye témoin du mise en cause mise en cause mooy koo xam ne dafa jëf ñu war a wax ci jëfam waaye xam nga bu ñu ma wooyee à titre témoin mooy dañ ma ne da nga fekkee dañ la bëgg dégg ci li nga fekkee te loolu li ko tax sama ndombal tànku maire moo tax ma fekkee kon loolu la ma dig doye woon muy ñoo xamante ne si ñu xam seen liggéey lañ. ñu xarañ lañ te ñuy teg seen liggéey ci yoon biñ ma woowee ma xamal leen ne que donc dama bëggoon xam ci ban cadre ban problème moo tax ma nar a ñëw. ñu ne ma dossier la boo xamante ne si dafa am décision de justice te mu concerné ku tudd Lopez ak ku tudd Mame Diarra Bousso. dossier bi 2006 la commencé. wala 2006 2011 2011. 2011 bi muy tàmbali dossier bi man nekkuma woon maire. dossier bi fii laa ko fekk. fii nga ko fekk waaw. ñaari parti yooyu fàttali 2014 nga yegg ci ci. mairie 2014 laa falu maire juillet 2014. Mhm. ñaari parti yooyu 2011 lañ commencé jëflante seen biir dem ba ci biir déggoowuñu ñu dem tribunal tribunal àtte leen daal di ne léegi li ñuy def mooy maam Diarra Bousso day jël genn wàll gi. Lopez jël genn wàll gi daal def décision de justice en 2016 bu wax ne que na kenn ku nekk ci ñoom ñaar jël genn wàll gi te maire ñi ngi sàkku ci moom mu defaral leen euh, mutation donc mu defaral leen kayit yi ci seen i tur. léegi problème suuf dëgg la am na. waaye mais monsieur le maire ñu jàll ci beneen étape. Mm-hmm. sécurité itam. waaw waaw ci waawoon pël ñàgg. problème sécurité bien vrai que euh, amu leen doole ji bi ngeen mën a régler sécurité bi naam état moo ko yor waaye tey ku ne Tivaouane Peulh dina def attraction waaye itam est-ce que mënuñu régler itam problème sécurité bu nekk foofu. waaw jërëjëf day benn pàcc boo xam ne bu am solo la ci sunu nekkin mais foog naa ca njëlbeen ca départ ba leeral nga ko ndax nee nga du sa du sa domaine de compétence sécurité moom moo ko état moomu sécurité. tegi comme que leer na la. mën naa avance. waaye xam nga problème mu sécurité rek tamit. problème sécurité. Mmh. donc li ñu ciy gis ñun muy insécurité. mett mmh. na lool ci commune Tivaouane Peulh ndax wax naa la. Mmh. commune boo xam ne moo gën a gaaw a màgg ci Sénégal façon doomu aadama yëpp ñoo fay daje. loolu daf ñuy indil problème mu insécurité yi. ñu ngi ci waxtaan nag bu baax état nag jël na ci ay jéego. comme lan patrouille. ay patrouille. Ah. léegi dañuy faral di ñëw indi seen i xaj wàccee ay. ñaari téeméeri gendarme mhm. bàyyi leen ci biir dëkk gi ci guddi gi ñu jàpp saay saay yi rek di génne. kon évolution mi ngi am. évolution mi ngi am mhm. mais loolu dañ ko bëgg a sancal ci biir dëkk bi. mu c'est-à-dire mhm. mu continuer. moo tax euh, au commandement de la gendarmerie nee na moom moo jox leen benn bërëb pour ñu defal ñu benn brigade bu mu caayib. brigade bu mu caayib. tu vois pour que ñu mën a am ay éléments yu doy. pour ñu mën a gën a sécuriser. kon daanaka. Euh, mais sécurité tamit dama ciy woo askan bi. waaw ñu ñu ñu collaborer ndax saay-saay bu nekkee sa koñ am nga ay yoon yoo mën a jàll. Mhm. ba ñu seytu ko ba xam ne bu dee saay-saay la ñu mun ko teel a jël si waaye saay-saay di nekk ci koñ kenn du ñeme wax ba mbir am ñu ne xamoon nañ ko. problème la. kon tamit maa ngi ñaan askan bi commune Tivaouane Peulh Niaga lu ñu ñaaw njort ci saay-saay am nañ ay relais yoo xam ne mën nañ leen informer pour que gendarmerie mën a en mën a enquête boo xamante ne si saay-saay yooyu dañ leen teel a euh, euh, di jële foofu ba nga xam ne dana mën a euh, wàññi insécurité bi ci la mais loolu tamit am na ñun ay jéego yu ñu ciy teg mooy mooy yan man accusé wu ma kenn mais dañu seetlu ne que day faral di am ay agression yoo xam ne dafa am ñu koy faral di def. ci wér-gu-yaram parce que itam ponk la boo xam ne vraiment euh, xëy na gox di ngeen am ay mbëbët mais li nga xam ne moo jëm ci ay projet envergure yi nga xam ne accessibilité bi déjà nit ñi mën a ñëw faju ndax lépp mate na tey. waaw non lu si bëri mate na parce que dama lay wax àdduna moom dara du ma lépp mënta mate à cent pour cent. mais li am soow mooy jóg jox ay jéego ba ñëpp xam ni am na jéego yu si dox. ndax jàpp naa ni mbos say ku fa ñëw au delà de l' organisation bi bi ñu def ak bi am nga xam moom moo am si euh, poste de santé bi am si mairie bi nga xam ni tey ku fa ñëw di nga gis sa bopp xam ni institution nga ñëw donc loolu je pense que ñëpp a ngi koy saluer mhm. te loolu rek la ñu def suñu liggéey aussi nekkul def rek taxaw ni def nañ mhm. mais dañuy continuer di gën a améliorer mhm. parce que man li ma gëm mooy à chaque fois bu ñu defee dara bu ñu ko paree rek wax nañ réfléchir dans six mois dans un an lan la def pour loolu gën a baax gën a ñaata poste fa benn poste moo fa am poste bu mag la est-ce que c'est pas le temps aujourd'hui ñu na peut-être on est en train de voir des voies et moyens parce que nu ñu def ba ba comment dire yokk personnel bi foofu lañ mën a jëm mais poste ba nemmel baax na am mhm. nañ poste maternité unité yëpp séparé mhm. logement yëpp ñoo fa donc je pense que ça fonctionne correctement mais subvention yi moom comme li ma wax rek mhm. euh, dina dina parce que xam nga ren ce qui s'est passé bi ma fi mujj ñëw wax naa la du woon fonds dotation du woon fonds concours du sel ba léegi ñoo ngi jooy pour jot si yooyu donc boo ko jotut forcément dana am problème répercussion bu muy am si subvention yi nga xam ne maire bi war na ko jël pour jox ko mhm. pour pour pour jox ko comment dirais-je population pour jox ko poste de santé. benn espace yi nga xam ni mm. léeg-léeg dañ koy réserver itam ndaw ñi dañ koy ñàkk tumranke si mm. euh, ba tax na dafay metti vous y pensez. non non déjà ñu on a un de jeunes boo xam ne délabré bu xaw a nekk ci état boo xam ni c'est pas trop ça. Mm-hmm. donc bokk nañ suñu planning defoon nañ ko suñu budget on a travaillé avec ARD. Mm-hmm. ñu jëm ci réfectionner foyer de jeunes boo xam ne foyer de jeunes boobu. Mm-hmm. nga xam ni tey def ak des communautés yu bees yu nekk foofu nga xam au delà du nekk foo xam dañu fay fecceeg di waaye rek mais dañu fa nekk foo xam mu nekk outil de recherche. koo xam ne ku bëgg épargne ñëw fa ainsi donc on est en train de travailler là partout mais mais monsieur le maire léegi dañu seetlu ni euh, li nga xam ni moom moo jëm ci yéen euh, bu ngeen di wax léeg-léeg itam ndaw ñi dañuy naan mbirum estat ñun duñ koy jël en compte mbirum subvention bu mairie di ko jox pour ndaw ñi mbirum nawetaan yeeg ainsi lu tax muy yéex des fois seen rapport ak jeunesse bi wala foofu mu bos moom. y a du du du du yi may wax rek comme pratiquement surtout si ay budget la ñuy fonctionner. Mhm. donc budget yi bu ñu ko mise en place bu tardé. Mhm. automatiquement day am répercussion da ngeen ñëw fekk budget bu fekk ñu fa budget. Mhm. ñu waroon a am budget ko. fi mu mujjee wax naa la ko donc fonds de dotation yi lañu dugal. neen def concours yi nee nañ pour équipement kii infas kii kii lay pour pour des infrastructures la mënuñu ko def pour leneen mhm. donc li tey obligé nawetaan yi tey ñun Mboss am nañ am nañ couverture mais on a besoin d'un d'un d'un est-ce bi non ñoo ngi ñoo ngi si plaidoyer bi lañ nekk donc mhm. tey bi bi ñu commencé seen xaaw ma subvention génn damaa wuti xaalis yoo xam mhm. fu ma ko wutee ñëw jox leen dimbali leen ay bu ne nga yëkkati dara jox leen pour dimbali leen seen nawetaan jënd ay bal jox leen donc loolu def nañ ko. mais war nga leen wax ni itam waruñu yem ci football rek. non xam nañ si loolu lañ leen expliqué. parce que mm. li may wax nee naa leen wax naa la ko léegi nee naa la même objectif fu euh, tey euh, foyer boobu ñu bëgg a defaraat. day nekk cadre bi boo xam du nekk fecc ak waaye rek mais day nekk pour lépp. donc tey boo xoolee au delà de ça di remercier euh, passage jeunes yi mhm. parce que tey ñëpp bi ñu fa toogee ba léegi daanaka lu ñuy def même boo xoolee école yi bi ñu koy bàyyi boo xoolee commune bi ainsi de suite ak yëpp set setal dëkk bi ñoom ñooy jël seen seen initiative hmm. monsieur le maire nu ñu la déggee ngay wax wallu yeew yi ñoo boole woon seen dool yi li am ngeen nar a dem ñoom ñu des est-ce que tey seen ànd bi narut euh, taxaloo tey. non xam nga xam nga tey boo xoolee euh, aussi man parfois damay dégg nit ñi ni ñuy waxee aussi xam yeew yi wàllu. même au sein de Yewwi c'est yoo xam ni euh, par circonstance woon tey lu ñu waxoon ci ci alliance Yewwi Wallu pour ay législatif la législatif jeex na kenn ku ne da war dem sa mais ànd bi dañ koy ànd bu ñu lu woo xam ni pour l'intérêt de de Séné Séné pour l'intérêt de la de la ñëpp ñu taxaw. bu ñu taxawee gis ni dañu war dañu nekk di néewal doole waa waaye Wallu dañu war taxaw. bu ñu gisee ni wàllu ko war néew doole waaye yow dañuy taxaw ànd boobu moo fi des mooy ànd boo xam naawlam du mais amatul benn objectif bu ñu am parce que dès l'instant que yéen ñëpp dégg ngeen ko au niveau de Yewwi même au niveau de Yewwi seen alliance bi c'était local législative mais jeex na parce que bu ñu demee ba alliance say ñi fa nekkoon Ousmane Sonko il a déclaré sa candidature oui ou non il a déclaré Malick Gakou a déclaré sa candidature Ahmed Aïdara il rejoint la candidature de Malick Gakou nga dem euh, comment dirais-je euh, ma Khalifa Sall avec bi muy recevoir les cadres ñun au sein de alliance bi fi am kay moo ñu ànd liggéey nekk benn ba bu ñu demee 2024 jàpp ni le meilleur profit ku si taxaw muy yeeyu muy wàllu nga nekk en bonne position ñu ni ñëw jàppale la je pense que loolu rek moo si nekk. waaw loolu moo fi des mais ay ànd moom amul ànd bi. amul fii ay nit la yu àndoon wuti benn affaire yàlla def lañ si wut lañ si am ñun ñëpp gis nañ ko euh, loolu ànd baa ñu ko mënoon a may ànd ànd nañ ko yàlla suñ borom defal nañu ko. donc li def loolu nag mooy consolider ko. mais du tee nag kenn ku ne sa objectif bi nga am nga xam ni mooy tax ngay politique pendant pour man booy dugg politique. duggoo politique pour tàccoo ak fecc ak way ak ay ànd topp si ginnaaw kenn. man loolu mooy sama gëm-gëm. dañu dugg politique pour essayer de concourir sur face sénégalaise parce que loolu mooy tax nga mën natt sa bopp foo toll. donc man gàpp ma ne un parti politique war nañ ko créer rek pour di langaambaat di suñu dañ ko war a créer pour à chaque fois bu échange amee ñu dem natti seen bopp xam fuñ toll teewul bu liggéey jotee bu nga xam ni ki fi nekk woote na liggéey ñëpp liggéey pour le cadre net de Sénégal. léegi tey ci wàllum njàng mi ndaxam euh, xale yi ñu ngi jàng ci ay conditions yu am solo parce que. léeg-léeg dañ fiy dégg ay abri provisoire mhm. ndaxam euh, simbandi foofu li ni mel am na fa wala amu fa noonu xam ngeen abri provisoire moom du ñàkk ci période bi nekk nii parce que dañu nekk période de transition xam nga période de transformation boo ci nekkee euh, da ngay planifier euh, nga wuti ressource financières pour mën a financer vraiment développement locale et infrastructuré donc ci wàllu boobu ñu def nañ vraiment ay avancées yu am solo mais am na am nañ am na abri provisoire. pratiquement euh, ci dañu sasek bu ñu amoon. Mhm. vraiment seen nañ ne abri provisoire yi euh, pourcentage bi wàññeeku na bu baax. wàññeeku na wàññeeku na bu baax a baax. parce mhm. que euh, def nañ ay jéego. état bi def na ay jéego commune aussi tabax na ay salle de classe. commune bi yan jéego la ci def tey. commune bi yéen non dañuy tabax ay ah am ngeen moyens yi. oui en fait bon dañuy dañuy bénéficier ay fonds de fonds de concours mais am nañu aussi ay partenaires ay doom euh, commune bi ñu nekk. Euh, à Rouen mhm. bitim réew. waaw ñoo xamante ne vraiment def nañ ay efforts. Mhm. comme en Terembas. Euh, am nañ benn doom benn courant man dem naa foofu dañuy gérer entreprise bu mag. Mhm. ci wàllu transport bi. ñuy am seen association ñoo ñoo réfectionné école boo demee école. termas diaspora bi am na lu mu leen apporté foofu non en fait bi mhm. man dem naa France euh, deux fois. pour organiser diaspora mais ñoom seen biir dañu am problème. mais c'est quoi le problème lan la. oui en fait dafa am ay considération yoo xamante ne souvent dañ koy am ci considération politique de mhm. mais man dem naa ba ma rassurer leen def leen présentation commune bi secteur bu ne secteur compétence transférée def naa ci présentation mhm. ci wàllu éducation bi ci wàllu infrastructure yi ci wàllu santé bi ci wàllu environnement bi suñu àll bi nan la mel tout ça def naa ci def jox naa ay chiffres mhm. même ci wàllu ndox bi jox naa ay chiffres ñoom ñu comprendre exactement lan mooy commune bi commune bi naka lay fonctionner mhm. loolu lu am solo la mais je pense que euh, euh, ñu ngi ñu ngi góorgóorlu quand même voilà man la même su ngeen nekkee dix mettre leen def comme ça ngeen am sa récépissé. Mhm. parce que aujourd'hui dañu nekk euh, ci ci ci. monde boo xam ne ci monde boo xam ne développement bi fédéré. Euh, mënuñu compter ci fonds de dotation bu ñuy am chaque année. waaw ah, c'est minime quand même c'est très minime quoi. waaw parce que déjà rek dagguma la fonds de dotation bi ba mu yéexee yuuxu ngeen fii ah. dégg nañ mairie yu bari yuuxuma sax parce que <laughs> dafa non non jàngat boo xam ne man dama ko def personnellement yuuxuma. Ah. toog naa sama bureau di xalaat di xalaat di xalaat mais je sais impérativement que effectivement état daf ñu bëgg a teg sur les rails. de, de, de, de les prises de décision pour que nous ayons des territoires viables au niveau de nos collectivités territoriales. Ça, c'est important. Mm -hmm. Ça doit pousser les gens, nous, mairie, de réfléchir encore à quel cadre de concertation, à quel acteur, comment faire en sorte que ñu mun am ressources am solo. Mm-hmm. parce que les ressources financières c'est très important. vous savez que déjà ñun si ñun euh, en Casamance déjà dans les collectivités ñu xam ne dañu nekk ci àll bi. Mhm. seen ressource euh, taxes yi. dafa faible ko dafa faible. Mhm. def nañu évaluation bi. Mhm. seet nañu par exemple avec euh, la banque allemande la KfW. donc le projet PDBG. la bonne gouvernance seet nañu par exemple ci wàllu investissement bi la commune de Simbani était en tête. ci wàllu investissement bi quoi. <laughs> mais bu ñu demee ci wàllu taxe bi. <laughs> c'est ah, minime euh, ci département bi Diattacounda moo ñu raw. parce que pourquoi ñoom euh, point de rencontre la boo xamante ne. Mhm. sooy traversé da ngay fay donc am nañ ay niche recette bi nga mais est-ce que dans hmm. ce cadre maintenant il faut pas ngeen def euh, benn cadre benn intercommunalité boo xam ne dina faciliter yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci mais en fait en réalité en réalité je waxoon naa la. jël mhm. nañ ay leçons ci retardu fond la. oui parce que c' comme Covid bi mu ñëwee dafa changer suñu cadre de vie. oui ñii dañuy nekk à Paris ñii dañuy nekk Dakar ñii def ay réunion. Mhm. ñun aussi bi fondation bi am retard aussi man toog na bi réfléchir honnêtement. mais xam naa ne euh, dafa difficulté bu amoon pour gestion bi gis nañ ko. Mhm. léegi difficulté boobu ci lañ dem ñu def planification pour que façon bi. bu ñu bett. ok ça c'est très important. Mm-hmm. parce que nit moom lu am rek xalaat la quoi. dëgg la voilà te xalaat bi dañ koy dañ koy partager. Mm-hmm. moo tax la la participation citoyenne elle est très importante. Mm-hmm. nañ def ay mécanismes boo xamante ne euh, nañ permettre quand même agriculteurs yi. pêcheurs yi. commerçants yi mun toog sur une table. ñu deleen def leen bilan de parcours c'est important. monsieur le maire santé. loolu tamit am na solo ndax loolu itam priorité la si Mbandi. waaw actuellement bon am nañ trois postes de santé ah donc euh, dernier poste bi ma tabax moom mooy post bi nekk euh, poste transfrontalier bi moom mooy bi nekk Assoumal li ñuy wax Missirah Safane. Mhm. moom mooy tour officiel bi. Euh, tabax na foofu tabax na benn poste de santé. bon toog nañ ba ah, def nañ fa ay matériel yóbbu nañu fa électricité ci panneaux solaires yi. on a ah. tout installé mais amuñoon kii infirmier. ah lan moo bloqué donc amuñoon infirmier mais ak médecin bi ñëw. vraiment euh, def na appel d'offre mu am euh, vraiment une assistance infirmière boo xamante ne moom la affecté foofu. Mhm. mais assistance infirmière boobu état fayoo ko commune bi moo jël engagement. di ko fay signé ak moom contrat de deux ans pour ñu vraiment ma may service vraiment minimum au niveau du poste. Mhm. vraiment en ce moment ça se passe très bien parce que moo ngi def vaccin correctement. Mhm. te seet nañu aussi le taux de vaccination même en Covid bi foofu la gën a élevé. ah ouais donc ça veut dire que c' est c' bi vraiment ça a été quand même très a été c' aussi. Mmh. une dame quand très dynamique madame Niassi ki xam ne boo xam ne vraiment elle est à la disposition des populations et elle compris que population ñoo koy fay. Mmh. donc moo tax mu ngi góorgóorlu bu baax a baax. et maintenant ce qui reste ci commune bi foofu poste bi des na ambulance parce que am nañu ambulance yóbbu donc euh, mais il faut beneen zone bi asumul ah, am post euh, am ambulance parce que dafa nekk à onze kilomètres la RN6. sori voilà na quoi donc bu amee ay problème de accouchement tout ça là il faut vraiment que ñu am ambulance euh, ci poste boobu. bon posé nañ ko waa ah, waa président de la république bu ñu doon am audience ak moom donc xam naa il a été aussi très sensible. ñoo ngi ñoo ngi xaar quoi te te frontière la itam ak Guinée-Bissau. oui vous savez que. asumul tey ñu si dañuy ñëw di faju si. Oh non non même ku fa dem nga xam ne fii moom point stratégique la. voilà parce que c'est à quelques kilomètres de Ngoré et presque autorité yu bëri léegi par Assoume la ñu jaar pour ñëw RN6 bi. Hmm? ça c'est très important donc euh, c'est pourquoi tanto vraiment di euh, des mooy mooy nañu góorgóorlu pour outil en tout cas ñu wax centre de santé si Mbane parce que commune dem na ba mu am ñett poste de santé donc il faut ñu am un centre de santé au niveau pour les évacuations pour éviter de la Goudomp ou à Ziguinchor hmm. voilà c'est ça notre ambition dafay sori quoi dafay sori quoi vraiment loolu dafay sori bon on est en train de travailler sur ça ak médecin chef bi. Mhm. que je salue au passage parce que suñu collaborateur la suñu bras technique. donc euh, ñun quand vous technicien vous à l'aise parce que lu ñuy proposer en général. Mhm. vraiment c'est pour le bien-être des populations. gis nga ñu ngi jaay sax ay cartes euh, cartes yi pour lan la. mais <laughs> mais ça c'est le fonctionnement normal le cours de fonctionnement normal d'un parti c'est normal. ah le parti pour la la mais carte ah, ah, yi. non non non carte yi c'est pas. non non non foog les cartes moom c'est on les recettes de de des partis là aussi. proviennent des cartes de vente des cartes ngeen ne 1 million 500 est-ce que 1 euh, bëgg rek wala ay militants vous attendez vous allez avoir les résultats vous allez apprécier après est-ce qu'on a 2 millions 3 millions de ventes l'objectif même est très petit. ah oui non non pourquoi ah, mais écoutez écoutez mais c'est le militantisme qu'on est en train de vérifier c'est important parce que ah. mënoo nekk dans un parti te amoo kat nga ne je et tu veux parler n'importe quoi ah, non yéen oui mais je pense que c'est ce qui en train de faire mais c'est une très bonne il faut saluer mhm. d'abord euh, la disponibilité des cadres mhm. mais aussi il faut saluer aussi l'engagement des militants qui qui à cela ça c'est important léegi Euh, Macky Sall bu demee sampee vingt 2024 yow da nga koy gunge mu dem mu dekk candidat <laughs> xam nga xam xam nga bon question boobu vraiment. question bu leer la ah lan moo leer foofu la xam nga présent. lu leer mooy du dem c'est un citoyen sénégalais. Mhm. il est libre de déposer sa candidature est-ce que s'il dépose sa candidature et que le conseil constitutionnel valide mais moi je vais je vais l'accompagner pourquoi ne pas l'accompagner là je vais l'accompagner. xante lu at évaluation la ñuy wax am na lu baax am na loo xam ne war nañ ko mën a. amélioré naam xëy na toogagoo leen évaluer li nu mel mais yow jàpp nga ne ay jéego mu ni am mais war na mu waruta mën a xaar. effectivement jéego yi moom boo xoolee ci côté bu ne la. Ah. xam nga foofu la ñuy wax c'est des communes rurales nga xam ne tout est urgent wala tout était urgent. waaw nee naa la. on a atteint l'accès universel à l'eau mhm. grâce au président Macky Sall aussi <laughs> parce que aussi le PUDC ah. indi na fa ay forage mhm. vraiment def fa addition fépp fi nga xamante ne amoo addiction parce que ñaari amoo yi nga xamante ne amoo bu ne benn kër la kooku rek moom mooy sonal problème mais boo xoolee amul problème d' accès parce que à deux kilomètres foofu mën na am fa mën na am ndox. ku <laughs> comprend kon xam nga ne mën nañ wax ne am nañ accès universel. te yooyu sax ci perspective mairie bi. Mhm. foofu yëpp dinaa fa samp ay forage solaire bientôt. Mhm. parce que j'en ai présentement. juróom benn ba juróom ñaari forage solaire nga xam ne ci sama mandat de 2014 à maintenant laa ko fa réalisé. Mhm. bien vrai que loolu ay espace maraîcher laa ko defal jigéen ñi. ñu ngi ciy béy. Mhm. parce que ñun béy lañ xam. am nañ foncier. Mhm. am nañ naaj bi ndox bi moo jafe woon. parce que avec les forages bu fekkente ne jigéen ñi béy nañ ñu war a fay la facture. elle devient un peu plus salée day euh, remettre un peu en cause vraiment seen recette euh, financière. mais boo amee mini forage solaire parce que partout am na ay teen yi nga xam ne dañu leen abandonné léegi. yooyu la ñu développé def ci forage solaire occuper les femmes boo demee sama commune tey plus de mille cinq cent femmes sont occupées autour de huit à neuf espaces maraîchers yi nga xamante ñu ngi koy defalee. Mhm. ba deux mille dix neuf ma commune de Mérite était nominée au prix du leadership local. Mhm. ci programme boobu noonu compétition yooyu ñoo gagné woon la manche du vote mhm. déw ma woon podium mais même sama adversaire yi ne woon nañ vraiment monsieur nañ ko l'actuel ministre Isaaxa Diop Isaaxa Diop Isaaxa Diop mhm. ñoo bokkoon nominé mais bi mu jotee prix parce que je me rappelle moo nekkoon deuxième mhm. def ma ñëw ne monsieur mais vraiment c'est toi qui mérité de gagner yéen da ngeen divisé wu yéen ah. ñii dañuy def nii ñii def na la ñun ñaan yéen euh, Benno Bokk Yaakaar non benn bokk yaa fu mu diviser. amul division. benn mosul am division. et dans l'histoire politique mondiale laa lay wax. local wan na ko. non local wane c'est pas élection législative dëkk yu gën a mag. non non non voilà perte ngeen ko loolu c'est une diversité d'ambition mais c'est pas une division parce que ku dem gagner liste parallèle tu es dans la coalition et derrière le président de la République. parce que man réseau des jeunes maires de la ko pour ñu mën a bari na jeunes yi nga xamante ne quasiment li jege 50 pour cent liste parallèle la ñu gagné. ok mooy ñi amoon ambition ñu bëggoon leen. ko ñu amoon ambition nga xam ne bon amoon na maire bu ne fi <laughs> xëy na président vraiment parce que maire nga il faut ñu joxaat la sa sens. Mhm. yow nga des liste parallèle population bi jox la kat loolu aussi c'est de la démocratie. waaw loolu c'est de l'animation. bokkul ak ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñoom. Mhm. ci xeex xuloo saaga sosal gor weddi kilifa maanaam minimiser institution. ci loolu lañ nekk. te ñoom ñu ngi aspirer à être vraiment président de la république ci seen bëgg-bëgg. Mhm. li yàlla def xamuñ ko mais xam naa la majeure partie de sénégalais doyal nañ ci ñoom tey nga saaga police saaga gendarmerie saaga magistrat képp ku wax ku la arrangé wul rek vraiment il n'est pas sorti de la bonne école ku wax lu ku wax lu la arrangé wul noo baaxut nga sosal ko d'ailleurs sax ñi bokk ci ñoom génn ci ñoom. wax nañ ne ñoom ils se sont assez organisés def ay comité di réseaux sociaux yi pour yàq nit yow bu dee drame yow lañ xëyal ñu sosal la nii nga def ci sa vie privée te loolu yëpp loi et dañ koo bannir mais parce que dañoo nekk ci réewu démocratie bien sûr mais maslacratie bi dafa bari. Mhm. te loolu nag war nañ ko dakkal. parce que aussi nit diñu dignité rek la am. bu comprenez parce que responsable yooyu lépp loo mën a jiñaate lu garaaw lu mel ni dana leen di tudd Ousmane Sonko parce que tey bu ñu waxee yooyu ñoom la. Mhm. les Barthélemy Diaz ci seen posture. wane nañ li ñu xam loolu rek la ñuy tari mooy la violence et les mots yi nga xam xamante vraiment dafa dëgg génn ci cadre worma. Mhm. génn cadre discipline. su ñuy wax keroog seen conférence de presse sous le régime de Macky Sall on a tué trente nangam personnes mais c' est les plus grands criminels politiques de ce pays loolu il faut le reconnaître pourquoi ma wax loolu c' est grave un monsieur comme Barthélémy Diaz taxaw ne sénégalais te ñëpp dëgg nañ ko. Macky Sall selon la constitution actuelle am na sañ-sañ def mandat beneen quinquennat en 2024 je crois dégg nga ko dégg nga ko non. <laughs> non dégg nga ko non yow laay dégg kenn tamit si dégg na ko. tey ñu bugg a weddi non du bokk ci élection 2024. ko bàyyi ci Macky en tout cas ñun réseau des jeunes maires de la mouvance présidentielle. Macky mooy seen candidat. mooy suñu candidat ça c' est nëbbu leen ko yéen. loolu l' avis le plus partagé. nuñ koy nëbbee. parce di ñu joxoon ci loolu c'est remettre en cause l'existence juridique de l'Alliance pour la République okay. l'existence juridique de Benno Bokk Yaakaar parce que loolu sañ yu parti la Macky Sall mën na wax ne 2019 dinaa ci pare pour répondre à une certaine presse mën naa ko comprendre noonu ba léegi ni mu ngi ne oui ou non parce que nee na man su ma waxee oui dana am lu mu yàq ci sama parti xam ngeen conséquence bu mu nar a jur bu dee day bokk ci élection 2024 conséquence bu mu nar a jur kii la loi rek moo ci moom lay jóge parce que boo respecté la loi et la constitution warul jur benn conséquence. kon kay moom bu paree 2024 jarul mu si bokk. lu tax du ci bokk bu ci amee sañ-sañ. ñu ne ñaari mandat boo paree nga dem. non ñaari mandat de combien d'années xam nga Ablaye wadd foofu laay ñëwee aussi ci li Barthélémy Dias lu gën a garaaw li mu wax au niveau danse ce pays de ce pays dans pays nee na clairement ñun xamoon nañ ne Ablaye wadd am na sañ-sañ am troisième mandat. mais loolu est-ce que vous imaginez man je me demande où est la société civile sénégalaise mais ñaata nit fukki nit ak ñetti dee ci ñenn ñi jële ci laago te yow yaa leen manipuler wàcce leen gëmloo leen vraiment ñu ngi xeexal seen réew gëmloo leen ne ils sont des nga ñëw un bon jour parce que tu veux gagner un référendum rek nga ne xamoon nañ ne waa am na ci droit kon dañ doon manipuler l'opinion sénégalais bu ko dégg te nga dem école même bu fekkee niveau primaire nga yem war nga génn ci ñoom. kon la nga jàpp ni te 2024 moom nee na du wàcc mhm. ku manifeste da nga fekk da nga yàpp la constitution te ma ne fu confrontation parce que boo buggee force dañuy naan résistance. Mhm. dégg naa kilifa bu mag bi nga xam ne dama ko respecté maa ngi koy nuyu de passage Cheikh Ndigal Sène demoon naa ziaram mu ne moom taalibeem fu mu jotee taalibeem moo tooñ. door daf ma jaaxaloon ma ne ah mën nañ tooñ sa taalibe fekk amul dara mu ne parce que man nee naa sama taalibe bul tooñ te buñ la tëlee na nga jégale. madame la maire yéen naka la centrale bu gën a mag wala bokk na si yu gën mag nekk kawul kawoon mënut a daj courant loolu tamit xanaa xel munu ko nangu de. waaw euh, ñoo ngi waxtaan ak euh, nag ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer loolu parce que man moom fu ma toog population bi laa fay toogal nee nañ leen kawoon dafa war a am. même poche yi may wax nii c'est vrai que am na électrification nag en réalité mais même poche yu ñuy wax nii euh, dafa war a am courant courant bi du courant électricité kese mais même le solaire parce que euh, économie d'énergie la ñu wax économie d'énergie boo utiliser le solaire segem naaj bi moom duñ ko jënd mhm. euh, te am nañu euh, centrale solaire ñoom aussi ils sont en réalité ils sont disposés à nous accompagner dans ce sens-là. su fekkee ne nit yéex moom. non peut-être que am na euh, am na lu ñuy xaar mais euh, yenn concrétisation yi rek mais en réalité man duma xalamal kenn mais ñoom bu ñu ma déggee. xam nañ ne la semaine dernière j'ai tenu quand même une réunion avec eux et ils sont dans les dispositions de nous accompagner à vraiment aider la communauté à s'éclairer au solaire loolu moom waaw loolu lu am solo la parce que itam ci li nga xam ne moo jëm ci courant itam puso bu euh, wadd sax war ngeen ko mën a fortam ci commune bi ndax ñoom loolu lañ soxla beneen bi mooy ci li nga xam ni moom moo jëm ci yenn ci ay entreprise bari nañ kawoon lool madame la maire waa ñoom xanaa responsabilité sociétale d'entreprise yi ñoom xanaa duñ ko joxe tamit. ndax nga sañ kaa wax nag tey moom <laughs> day nekkaat encore beneen occasion parce que je pense que am naa yenni occasion yoo xam ne damay joytu loolu. Ah. mu nekk euh, dans les rencontres yi may am ak population bi mu nekk ci rencontre yi nga xam ne dama koy def au sein du conseil municipal mais tey euh, dinaa saisir quand seen antenne bi pour ma wax. waaw ah, waxal sànq sànq wax nga ne. Euh, du ñuy dégg woon lu bëri am nañu ay hôtel yoo xam ne man xaw moo ne hôtel Aljana par exemple woon la bokk koo ko waxul day foog ne Kaolack la bokk am ay hôtel yu bëri yoo xam ne ñu ngi dans la localité am ay usines am yeneen euh, euh, euh, ñoo xam ne dañ ñëw dans la localité pour investir RSE dafa bokk ci liy doxal. duñ leen ko jox ñoom. ah tey li ma mën a wax moom mooy que c'est vrai que defaguma guma un an. waaw ku nekk ci ñoom dinaa am sama programme ñëw jox la ko pour nga participer au développement de la localité. Mhm. parce que li may faral di wax naan mooy tey bu ñu doon doxal rek yoon euh, nguur gi mënoon na sax bañ a sonn pour jàppale kawoon ñi nekk kawoon rek mënoon nañ jàpp développement kawoon entreprise yi nekk kawoon. non seulement sur le plan éducation sur le plan euh, santé euh, sur le plan emploi des jeunes tey suñu jeunes yi waratuñu woon jooy am na ñu ay entreprise yoo xam ne ay usines yoo xam ne ñi ngi tëju ñu war leen euh, dekkaliwaat ñu dundaat encore jël jeunes yi ñu liggéey xamuñu en réalité lan moo tax affaire yi di yéex mais dañuy saisir rek antenne bi parce que jooy moom du du doy <laughs> boo amee lu la métti moom da ngay dem foo xam ne war nga ko fa waxee nga waxee ko foofu loo accès à l'eau potable surtout l'accès à l'eau potable euh, mu nekk loo xam ne euh, euh, dama koy faral di wax mënuma dem fenn ba génn fa te waxuma ko parce que commune ko woon dañuy dund problème mu accès à l'eau potable loolu nag problème foncier bi am ci wàll bu rëy ndax il y a un quartier am na fa benn quartier boo xam ne mooy quartier Kanda surtout am na nag dans les autres quartiers ñoo xam ne amuñu ndox mais quartier boobu moom moo ci gën a sonn li ko waral euh, dañu ne dañu nekk dañu dëkk foo xam ne waruñu ko waruñu fa dëkk mooy li ñu doon wax léegi. dañ leen jaay foo xam ne waruñu leen fa woon jaay. Mhm. donc instant bi pour ñu am ndox ñoo ngi ci nag. parce que bi ma yéegee euh, loolu dafa am fu ma ko jooytu jooytu ko ci président mu ne ma je vais t'aider à aider la population puisque yow lii nga bëgg. te commencé nañu déjà dugal ndox ci biir dëkk bi mais métti na. Mhm. parce que quartier boobu titre foncier wu ASECNA la ñu nekk. te titre foncier ASECNA boobu noonu amuñu këyit yi nga xam ne war nañ ko mën a les les bons papiers. pour ñu indi leen ndox. Mhm. ba nga ñëwee présenté am na ñu jàppoon ni jigéen la waruñu ko mën a jox est-ce que dina mën a jël euh, commune bi waaye yaakaar naa la nga dawal xëy na xel mën na dal walla am déet. xam nga jigéen la du ko mën yóbbu. xam nga aussi day baax euh, nee nañ maire. maire ñu bëri dañuy naan dañ euh, ñu bëri dañuy ne waroon nañ ko di jox jigéen ñi parce que maire mooy yaay maire euh, ni mu nekk ni ñu ni ñu joxee turu yaay muy jigéen mhm. tey on est en on est plus en mesure de comprendre les problèmes des gens mhm. man loolu dama il faut le confirmer tey day da doon baax aussi bu amee yenn émission yu mel ni mu am micro trottoir mhm. parce que nee nañ saabu du fóot boppam tey mën naa wax benn ñëw ba kawul exactement avec plaisir war naa fa mën a def émission ak yéen ngeen déglu population bi. Mm-hmm. parce que je pense que defaguñ un wax naa la fi poste de santé bu ñu waajee inauguré. wax naa la au moins emploi des jeunes mooy xëyu ndaw ñi euh, commencé wul ren. musu mm-hmm. fa dugg. Mm-hmm. dugg nañu ba am nañu au moins quatre vingt jeunes. yoo xam ne ñu ngi ci pas ñëpp nekkuñu ay jeunes mais ñii ay jigéen lañ ñii nekk ay jeunes. Euh, sur le plan éducation am na ay jéego yoo xam ne ñëpp a wax ne. amutoon ak mm. leneen ak leneen ak leneen ak leneen donc mën naa wax ne ah defuñu cent pour cent de defaguñu sax cinquante pour cent ndax defuñu un an mais sant yàlla bu baax ok li nga nar daal moo ëpp waaw ok ça c'est sûr. waaw euh, madame le maire Fatou Sène émission bi daanaka jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo ak euh, sunu téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo ngi doon seetaan ci canal 108 bu TNT mi TV ak si euh, rajo Rewmi FM 97.5 ñu bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi. donc di la remercier di la bu baax. di remercier aussi sa technicien. Mm-hmm. di remercier seen responsable qui aussi une grande dame. madame Ndeye Sané madame madame Sané. Mm-hmm. donc di remercier. remercier rek population u Kahone mhm. ci seen kóolute euh, bi nga xam ne jël nañu seen lépp jox ma ma ne leen rek euh, nañu tëdd nelaw mhm. ndax man aussi mënatuma nelaw mënatuma noppalu ndax seen i yitte ma leen di gërëm bu baax nag di gërëm Sénégal yëpp di gërëm aussi ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi may accompagner pour ma relever défis yi nga xam ne ñoom laa am dans localité di sant yàlla aussi bu baax ndax yombul Euh, mënoon na demee neneen mais mi ngi téye sama loxo téye sama tànk téye sama gémmiñ di ma jubanti mhm. donc di ko sant bu baax di sant aussi samay waajur ak samay euh, xarit sama jëkkër parce que ñoom ñëpp a nekk sama wet quand mhm. di ma accompagner na solo merci beaucoup ok kon ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax moom fàttu seen nekk maire bu kawoon moom lañ doon dalal ci émission gox bi ci Rewmi TV ak réew mi FM jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci Rewmi TV ah xanaa bu ñu leen nag sañ leen a loolu mooy observatoire suñu baat yiñ leen dénk moo waral am sañ-sañu saytu